waaw bu ñu sant suñu borom ba pare euh, di gërëm suñuy waajur euh, ñu ngi euh, encouragé équipe bu jamono xamante ne dëgg-dëgg opposition la parce que bu ñu seetee ci seen bidon bi ñu ngi fukk dañuy fugal dëgg mais comme tron nañ leen seen contre jam gàddaar mi bu Fatick ñu jot a préparé ci loolu ba nga xamante ne nii day tax ba nga xam ne dañ leen neutralisé au niveau de militaire ba pare am ñoo xam ne ni ñuy gën a côté yi ñoom boo xam ne am na bi mu nekk un zéro. match bi yomb woon parce que fin la nii équipe yi ndax ñu dem ci dafa ay équipe yu mag lañ donc euh, question de mentalité ak question de fighting euh, les gosses sont bien bataillés au niveau du milieu terrain et dans tous les comportements terrain te jaar rek on a gagné donc ñu ngi remercier suñu suñu borom euh, aussi di sant ñëpp ñi nga xamante ne nii dañ cee jàpp bon di encourager aussi waa jamono parce que jamono dëgg-dëgg non pas démérité. dama laaj bu mujj nan ngeen di aborder quart de finale yi. waaw quart de finale yi comme de finale bi rek parce que aussi fi nekk ni match bi ñuy football final la léegi dañ koy préparer euh, xamee na aussi euh, jëm bëggum daaw quart de finale lañ ci éliminé woon donc ren war ñu éliminé daal ci demi finale quart de finale dañu war a dem ba final loolu la ñu bëgg yóbbu coupe du di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bon vraiment di euh, remercier aussi di féliciter xale yi parce que match bi du woon match bu yomb. parce que match boo xam ne dem nga ba série des tirs bi vraiment ñëpp xam ne loolu match mais yàlla def na nañ ko kon léegi li ci am solo rek mooy ñu tiré enseignement wu match bi vraiment ji ma corrigé waat euh, euh, ci quart de finale yi nga xam ni vraiment dinañ gis beneen euh, bi ngeen éliminé guy gi nan ngeen di préparé quart wax naa la ko comme d'habitude rek bu ñu demee ba ci kër ga match bi am na jàngat yu bari am na lu baax am na lu bon li baax danañ ko ji yokk. li nga xam ni baaxul aussi vraiment ñu jim ko defaraat jim a defaraat pour que au moins suñu prochain match vraiment booy yi ñoom ñëpp ñu mën a nekk à cent pour cent je crois que c'est l'essentiel beneen bi ci tegu mooy di di féliciter xale yi parce que ils ont fait un bon match malgré dugaluñu bi mais ils ont réussi un match di féliciter aussi bon waa Louga yëpp parce que ku ne xam ne ni euh, euh, la région de Louga la ñu représenté kon ñu ngi leen di féliciter ci seen jàppale bi nga xam ne ñu jàppale dëkkandoo di di encourager aussi euh, Gouye parce que démérité wuñu Demba Touré maa ngi leen encouragé bu baax a baax di euh, félicité aussi waa dëkkandoo yëpp di leen remercier di leen wax ni vraiment ñaan yi mag ñi nekk ci dëkk ba ñaan yi vraiment lépp ñëw na yàlla def na jàmm gagné nañu léegi nag nañ gën a dolli ñaan yi vraiment bu ñu demee ba ci kër ga ñu mën a préparer suñu quart de finale tranquillement parce que objectif bi ñu am ñëpp xam nañ ko parce que équipe bu gagné daaw coupe bi mais ku ne xam na ni objectif am mooy jim ko jima mooy mooy jima jima wan ne la ma defoon daaw tànduma ko je crois ci ci ci la ñu nekk yàlla mën nañu sutural te ngi ci liggéey ngir loolu di remercier aussi tous les techniciens yi nga xam ni ils sont autour de moi man je suis bien entouré parce que surtout ay mag ay techniciens ay ñoo xam ni vraiment doo fi nekk di lim mais le moment venu peut-être dana am lu bari loo xam ni dinaa ko wax mais vraiment je ne suis pas seul je suis entouré avec beaucoup de euh, aussi leen sant baax di leen gërëm seen liggéey rafet na. soo da nga xam ne équipe bi am na mooy mooy équipe bu Mouhamed Ndiaye mës a yor moom. équipe bu am discipline la lay nekk équipe bu rigueur lay nekk loolu moom loolu moom sama directeur la nekk quoi voilà.